fois ay vidéo ci loolu ne xale jigéen bu ñu nangu yenn yi ñu déglu la ci loo ci ah, moom de nangu naa doom kaw kaw euh, ginnaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp maa ngi jàll Seyda Mariama Niass mm-hmm. bu ko fàtte sànq bi may nuyoo mm-hmm. mu nekkoon jigéen joo xam ni wax naa barki démb ma ni cadre moo daanu mm-hmm. koo xam ni fexe na ba réew mi ndaw ñu ci baree bari fexe na ba nu mokkal alquran kon kooku bu nu ko ñàkkee jullit ñëpp ko ñàkk ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sofia da ngaa souligner thème bu am solo maa ngi am mbégte nag ci invitation bi ndax li may wax bis bu nekk yenn saa yi nga jóge ci émission bi am ñu lay message bu ma sañoon yenn émission yi nangam nangam waaye xam nga boo nekkee kuy waxal diine waroo seexlu benn jotaay parce que nit ñi dañoo soxla nga orienté leen dafa am bët buñ lay xoolee am lu ñuy séentu ci yow man buñ ma invité fii lenn rek lañ may doyee mooy lii ñuy wax lu ci diine wax li ci diine wax moom laay wax ca laay yem aw ma beneen xam-xam aw ma beneen xalaat bu dul lii ñuy wax lu ci diine wax bu ma ko waxee pare naa ci Sophia jigéen bi ñu koy muur muy sëy amul fenn fu yàlla wax ne bu demee métital leen ko xam nga lu yàlla wax yow mii di ko takk fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ihsaan soo ko mënee téye ànd ak moom ci ànd gor ak nawle muñal ko ak ay benke ñenkeem jàppale ko tette ko nga téye ko yàlla nee na su fekkee mën a mënoo ko bàyyi ko mu dem te ngeen tàqalikoo ci tàkkalikoo bu rafet ay benke ñenke aw tasrixun bi ihsaan maanaam waa maanaam dañuy faral di wax ni jigéen matul yenn saa yi di nga takk jigéen mu am benn jikko boo xam ne mi ngi ci moom te neexu la hmm. jikko waaye teewul danga koy téye hmm. di ko orienté di waxtaan ak moom. Mhm. di ko indi. bañ a nekk koo xam ne da ngay gis naqar tey tey rek bàyyi. jikko Sofia kuy def saa yoo takkee jigéen gis lu la naqari ci moom nga ni danga koy bàyyi. mais at mi dinañ la konteel ay jabar. dëgg la siise nga ca jikko. dañ la ni téye ko ak ay benke ñenkeem. di ko oriente ndànk ndànk ba keroog muy mel ni nga bëgg. siise nga ca. di mbona nga ca jikko ñaana ca ak soxor. benke ñenke mu ne mooy jikko. jikko jooju siise nga ca. iñaana nga ca. soxora nga ca déglu bu baax. yooyu yëpp mën naa dañ di wala. yaa ngi dégg nee na daal wax du ci tegu. yàlla na yàlla dafa wax ni. du ma sama morom mooy jaxaseeg yàlla ndax man waxuma yàlla dara. du ma sama morom mooy jaxaseeg yàlla mën daal ustaas laay déglu dama ne. dama lay wax yàlla nee na. amul ciy tegu yàlla nee na ustaas yàlla nee na. ustaas nee na. yàlla mu ne. fa imsaakun bi maarufin mm-hmm. aw tasrixun bi ixsaan mm-hmm. da nga koy téye ak ay benke ñenkeem nga dem ba ne yàlla kii daal jikkoom bii mënuma koo téye yàlla nee na bàyyi ko ci anam bu rafet mu dem mais dafa am lu prospère wax sànq lu am solo Sofia am na jigéen ñoo xam ne sëykat lañ bëgg nañoo sëy am na nañu xolu sëy mais ñanuy fekk si ñoo leen jàppalewul pour ñu sëy xam nga Sofia caat moo xam ne mën ngaa fóot wala sax mën nga ni sa jabaru frère boo dee fóot est-ce que doo ma yóbbaale lii waaye duñ ko def bari na jigéen ju tas sëyam ña ko tas ña ca biir kër gi dafa yeewoo di lekkee di fa naanee yenn saa yi nga gis kër goo xam ni taawu kër ga daf doon sëy ba tas nekk ci biir kër gi bëgg yor kàddu kër gi bëgg a yilif moroomu jigéenam am koo xam ni sëyul ci kër gi mais beneen kër lay sëy mais mooy bëgg di dogal ci kër gi xam nga bu tegoo ci yoo ne bëgg na noo boote mën na noo boote njaaxaar naa ne nuy tëddee ndey ji seex na nu ya doonuy daw ba sonn lu nu for indi ndey ya doonuy xëy lu nu for indi waaye jabar ya ak goro ya doonoo am béjjënub ju mbax boo xam ne ñu naqaree boot na nuy doon dëgg la dëgg la mu am ñoo xamante ni bii Sofia kër ga ñuy ñëw di sëy ñan fay fekk ñu leen jàmm pour ñu sëy Sofia xam nga ni am na jigéen ñoo xam ne bu xew amee ci seen biir kër dañuy tiit parce que njëkk yi war a gërëm neexoowunu ak ñoom te danañ leen gaaral far ci beneen clan bi di xeex kenn ki te ñoom ñëpp ñu nekk ay wujju peccoor ga nekk ci biir kër gi Sofia ki war a defar bu dee yàq fu àdduna bi jëm te yaay dafa jege doom yenn saa yi nga am sa caat moo xam ne lu mu la wax ci sa jabaru càmmiñ yi danga koy gëm bu kiy toggee moom la ñuy félicité sa togg gi neex na ñëpp a yàkkamti nga aye bu keneen ki toggee jubluwoo ko yor say trak di ko sànni boo dee esthétique yaa ngi esthétique di gaaruwaale kële yooyu defarul Sofia nit bu bàyyee kër ndeyam ak baayam ñëw sëy si ci kër ñam fay fekk si ñoo koy dooleel ñoo koy jàppale yàlla def ni nañuy rafetal ci sunu biir père li mu wax kenn du ko dindi nit mënu koo dindi laa wax. am na jigéen ñoo xam ne ci alxuraan waaye su alxuraan yee du ko toxal man maa wax loolu ñoom ñëpp nag ñu ngi may sot barka borom Tuubaa ah, waaw. soo Sofia taxaw na léegi daal ne li Prospère wax loolu mooy dëgg. ñaari wax lenn moom mooy ci mën a am dëgg ak fen. papa man dama kii rek. dama doon ginnaaw ay tubaab ngeen négal rek. yaa sayda dina ñëw bu leen a ngi nii oustaz ale oustaz dama ne bul ma wax xam-xam xam-xam ak ne bul ma wax xam-xam nga ne xam-xam ak dox du benn dama ne ragaluma oustaz ragaluma kenn ñu waxante dëgg aussi ragaluma oustaz li wax alxuraan mënu ko dindi xam-xam ak dox du mi ngi ah? toog waaw mais gisul li mu wax lépp dama koo gis ya sayda ban la ci yàlla gën a nangu ki gis ak ki jàng mën ngaa jàng jéng soo dee jàng eh yow mën nga maa ba wala mënoo maa bàyyi non mais léegi dama lay laaj mën nga maa bàyyi wala mun la maa bàyyi mën ngaa jàng jéng jéng am waaw léegi bàyyi nopp na ginnaaw nee bu ma wax ah, léegi noppi naa soo ñëwaatee may la je ne me retrouve plus waaw baal ah, ah, kay ndax du ma moroomam daf may bàyyi ma wax munu maa bàyyi ma kii su ma waxee mu dal sama kaw nga dal sama kaw prospère nekk fee ngeen koy bàyyi dégg nga xale bu ndaw bii di ma jéem a ruube naan dafa jàng kii kii <laughs> kii kii man maa ko yar ak ay ay moroom dama ne su dafa jàng man damaa dox. mag yàgg na ak yàlla. dafa jàng damaa dox. mag yàgg na mag yàgg na ak yàlla. dama ne damaa dox. waaw kan eh, xam nga ne kii xam nga ne maa ko ëppi sagar. parce que eh. président la. ki ko jàngal du président. dama ne ki ko jàngal du président te moom président la tudduma Macky ki ko jàngal du président. tudduma Macky Sall non non. ah non non fii daal c'est simple. bul ma wax Macky Sall. fii ñaari faar la waaw Macky Sall je l'ai connu jeune. d'accord papa jeune laa ko a mu nekk Biafra gii Biafra gii suñu àndee moom la ne la kii ak kii ak a mbokk Macky Sall la. Macky Sall nekk a yi di seetaan dama ne Macky Sall nekk caaro di seetaan match laa wax. waaw Biafra jàkkaarloo kër ñoom gululu. waa léegi. man maa wax loolu. dëgg la papa yow la wax dëgg la. Euh, yaa booy balaa may ah. dellu ci oustaz ah. la oustaz ñu bàyyi la nga nga kii sant Fall naan maa dox maa gis bu ko defati bëggul loolu ah, bàyyi jàmbur ñëwal waaw ñuy wax ange billah bismillah inna wal yàlla asalaamaaleykum waa Sénégal gi ñuy seetaan yépp maa ngi leen di nuyu ñu ngi lay di leen ziar di nuyu waa plateau bi plateau bi teel naa lool maa wax lii bi may nuyoo rek dafa tombeek problème technique waaye nag xam leen ni ajaa ngi fii toog mm. di nuyu waa njaarim gépp dëkk Serigne Touba di jàlle ñi nga xamante ni ñoo fa am naqar ak tiis di sama frère mbay Babacar ah di jaale nag <laughs> suñu kilifa gii fi jóge di ñaan yàlla mbas mi yàlla na fi jóge ci jàmm ak salaam ci barke yonentu bu tedd bi sallallahu nuyu naa ñëpp pour gàttal mm. ziar ñëpp màggal ñëpp waaw di wax rek ci euh, li ngeen di waxtaane nii dafa am solo parce que nee naa li ñuy wax yëpp bu ko nit ñëpp doon jëfee kon yaakaar naa ni kenn du jiw waaye nit matul mais man dama jàpp ne Père jeeg muy jeeg muy jànq mm. bu ñu la takkee danga war dab sa bànneexu jëkkër waaye danga war a dab say bànneexu mbokki jëkkër say dëgg la du jaam waaye nag jigéen su toogee ci diggu ëtt kër gorom bañ koy gaarwaale yaa angi su roche <laughs> yaay jàngee woon fi lii nga ne lan li mu wax dégg nga ko tamit bu def suuf oreille tax ma koy laaj yaay la wax nga ni <laughs> waaye ñu da ngeen may déglu rek te bañ maa tëgëra ba joo dama ne laa dégg ñoom suñu la bëggul te loo ci man yaay père Ngoné <laughs> boo nekkee ci biir kër hmm. di sëy xam nga oustaz dafa am lu wax nee na sëy du jigéen dañ ko war a jàppeeg njaam laa ilaha illa ci oustaz waaye dañu ne dafa am référence yoo xamante ni dañuy xool ci ñoom pour mën a sëy pour jur lu baax. ma lu bëgg jël oustaz. ndax nag sama kaw. Père Ngoné maa ngi ñëw ndax nag. ah sunu maam soxna jaara dañ ne daa téye woon sàkket wa mhm. ba taw bi taw te ci kawam. ndax ak njaam la ndax ak njaam la wala lan la musu koo boo duggee waaw mais mais xaaral maa ngi ñëw. maa ngi ñëw ñun ñëw nañu <laughs> maa ngi ñëw. ma ne ma ne. ma ne il faut il faut ñuy bañ a bàyyi di sërxalante rek te ngeen may ma ma daaneel. dama ne jamono yi ñu nekk nii bokk la ak jamono yenu jóge ndax am na jamono yoo xam ne dañ lay muur yóbbu la ci sa biir kër goro wàcca la fa hmm. natt sa loxo yi ay hmm. dugub waaw muur la sëru njaago nga sëy <laughs> sëy du caaginu jëkkër ji kese nga war a sëy rek ah, da ngay sëy ci jëkkër ji sëy ci say goro sëy ci say njëkke billaahi li la war lépp ci biir kër gi nga def ko li nga mën loolu mooy dëgg waaye ñu ne salaamaaleykum ñu jël la yóbbu la ci appartement dama ne jigéen boo yaroo ci sa kër yaay mu yar la won la yoonu mbaax jàngal la nu ñuy fóotee jàngal la nu ñuy toggee jàngal la jamonoy root sax bokk ndax am na ñu juddu fekk ñu robinet seen i kër bàyyi dañ daan yenu ay paan di root ñooñu seen xol toj na. waaw di jukki kër goo leen mën a dogal dinañ mën a muñ. Hmm. ndax lala sa yaay di wax nga di ko muñ soo demee sa néegu jëkkër. Hmm. sa borom sa yaay yu borom kër wax la ko war nga koo mën a muñ. Hmm. dëgg la sëy du jaam waaye ñun jigéen dañoo war a sëy ba ngeer ndax li ci li li indi li indi suuf si moo dem ba indi karo yi ndax da ngay sëy ci kër fekkoo fa dara di ko muñ di ko muñ di ko muñ di ko muñ ba ñooñu sax nga fa fekke woon nekkatuñu fa nga dem ba yàlla def yàgg sa borom kër ngeen dem ba mu mën dugal la ci kër boppam fekk na nag léegi nag jot na ndax kaala gi nag ci ndigg li la njëkke sedda yàlla waxi dëgg rek nag waxi dëgg rek lañu fi tisool yi dañ ne dañ ne dañ ne njaag fabal njaag nangul jab jeeg ku ko ñee mas nga koo yërëm tisool bi dafa ñëw naturellement ah, bañ ne njaag nangul njaag fabal njaag jëlal ab jeeg yaay booy ku ko ñee tay ci ay état sama yi ko ay doomam tabaxal wala ay karo wala ay 4-4 daw dafa fekk dañ jàpp dafa sonn xaw naa dee waaye bu ngeen tëbee déedéet du ma d'accord bu ngeen tëbee ne ab nan nañ ili affaire appartement laa fi dégg ñuy wax waruñu koo dugal waruñoo jël jigéen mu dem beroog jëkkëram ci appartement ah dëgg la mun nga beroog sa borom kër sax ci appartement mais du tey na nga sëy sëy bi say goro war nga leen a seeti aha ku ne ci biir kër la ñu wax. waaw ñu jéggi ndey ak baay. Euh, ji euh, euh, ji ji nu mu tudd tuddati sëru sëru jëkkër wala frère jëkkër xañ la bundu xataal la ko. dama ne li nga nangul sa ndey ak sa baay. warul la joteeg sa sa warul la amul benn problème pour sa sa yaay jëkkër wala sa baab jëkkër mais dafay am ñu ca rax. Mm-hmm. ñoo xam ne sax bu àdduna baaxoon dañ leen fekk ñoom ñu boppam ñu muur leen yóbbu ñu sëy yi loolu la ñuy wax ñun. waaw mais am sëy day nangu. attention sëy day sëy day neex. sëy day naqari waaw. waxuñu waxi appartement mën nga dem ba ñëw dellu si toog waxuñu loolu de nañ ko dugal ci biir. attention non da ngeen dafa am ku wax. fii ne da ngay dellu si toog te doo may ko fay say jàmm. man dellu si toog te doo. kër gi doo waa ma ne yow bu dee jigéen nga nga sëy ci biir kër gi ba pare nga siis wala nga soxor. Ah. ngay siis say njëkke. Ah. ñoom bu ñu gisee seen bopp nag. da ngay dem ci biti naan man maa siis loolu baaxul sax te ku sëyul. Hmm? dama lay laaj sëy si si kër sa jëkkër takkal la seenu or sax sa sa say rakki jëkkër rek say magi jëkkër ne tey ñu dee. na la takkal jàmm say rakki jëkkër ne tey ñu dee. waaw du fi jeex. na la takkal jàmm doo am jàmm ci kër gi mukk. lu ñu la defal ñu ne noo bi mu la bi mu la takkee la gëj a defal suñu yaay. la gëj a defal suñu papa jigéen daal boo defee la nga war a def ci sa biir kër. exactement ci say njëkk ak say goro lu la seen càmmiñ defal dañ la koy yéene. non non bëriwu fi de. ma ngeen wax max leen non non jigéen léeg-léeg nga takk soxna mu ñëw la nga daan jox sa nga xam ne da nga ko daggaloon ñaar fukki junni par weer ah, wala fanweeri ko dagg ko dootoo ko. chargé yokku c'est euh, il faut ma dugg ci débat bi parce que li oustaz wax moom laay dëggal nee nañu ñëwoo ci euh, sëy pour ñu lay bund xataat ñun ñu lay bund xatal je suis tout à fait d'accord. Mm-hmm. man bi dama ne bi ñu defee distinction entre ki fi sëy si. ak doom bi ñu jural boppam foofu noonu y a problème mhm. parce que yow da ngaa sëy si ci kër gi mais da ngaa ci kër donc foofu da nga faa am papa am fa yaay ñëw bàyyi sa papa bàyyi sa yaay bàyyi sa ñëpp ñëw ci beneen famille sa jëkkër indi la fa mhm. man je me dis foofu dañ laa war a traité comme ni ñuy traité doom ji nekk ci biir kër gi dañ la war a neexal dañ la war a gën a neexal parce que da ngaa yaay bàyyi papa ça veut yow da ngaa sëy si ci kër gi ñu lay def yu metti que yow da nga fay jur doom yu baax non non non ça veut pas dire que dañ lay bundu xataal pour nga war fa mën a jur doom yu baax suba li fa doom ji war a dundee lu neex li fa doom ji li fi doom ji war a dundee lu neex noonu yow lañ fa war a dundee lu neex yow goro bi ma yaa yaa loo xamut dëkkoo ci këru mbooloo. dëkkoo ak goro. Mm, yàlla bu ma gisee borom tubaab dëkkoo ak goro yow. loolu du ci dara ndax dañu la war ka nga dëkk ak. sa la dëkkoo ak sa goro ci appartement nga dëkk. gis naa sa borom kër mi ngi ni sa oto ngi nii gaaree. yow yaa ñeme. yow yaa ñeme yàlla yow. da ngaa dëkk bu gor ça veut pas dire que da ngaa dëkk ci appartement que yow lépp lu la war say doo ko def am na ñu dëkk ci biir kër du ñu def li ñu war a def yaa ngi dëkk ci appartement teewul li nga ko war a toppatooyee sa goro yaa ngi koy toppatooyee père père maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñu jàkkaarloo yow waxuñu kii yow waxuñu sa wax ndax yow nee nga doo foote nee nga doo foote rap ñu ñu ñu contextualiser tamit sujet bi parce que ñii buñ fi taxawee naan ñu démb ñii taxaw naan ñu tey demb il faut noter que ni ay picc fakka nga doon woon goro goro mais Hitler bàyyi ma Hitler bàyyi ma. man waxuma la piccum serbet laa la ne Hitler nga ma ma. man piccum serbet ne nga ma ma. waaw man piccum serbet Hitler bombardement dafay jeex. piccum serbet jàmm la paix. piccum serbet islam dafa ne yaa salaam tey. tey oustaz dama jàkkaarloog yaa salaam. ay piccum serbet man xaaral sax yaa salaam. yaa salaam dama ni ku góor ki te oustaz balaa fi moom laa jël sax tey tey oustaz laa jël mm. xanaa neex yaa salaam laa jël donc il faut noter mooy li ma yaa wax c'est important éducation da nga jël ku jigéen ki mu juge ci ndey ak baay ndey ak baay sëy ba jur ko ku góor ki juge ci ndey ak baay ñu sëy ba jur ko ñoom ñaan ñu fas yéene sëy jaamu yàlla donc am na nu ñuy boolee ci paramètres yooyu yeneen nit jox leen yenn pouvoir yi nañu bëggee jaamu yàlla sax duñ ko def ñooñu bu ñu ragalee yàlla dañuy xam ne ñoom bu ñëwee sëy fekk fi une bonne une fille boo xam ne yar nañ la soo demee fekk sa yaayu jëkkër normalement da nga ko jàppee comme sa yaay ah, soo demee fekk fa say sœuru jëkkër say sœur lañu ndax ku bëgg jëkkër boo bëggee sa jëkkër di nga bëgg ay ah, mbokkam mais maintenant il faut ñu noter que ne xoolal déglul société bi ni ñuy dundee dañu dem ba jox ñenn ñi pouvoir boo xam ne dañ ci abusé te diine sax joxu leen ko xam nga il y problème bu ñu demee ba ay goro ak ay njëkke mës naa ko wax émission passée di tas ay sëy te uh-huh. oustaz mës naa ko ci sax interpellé ne ko oustaz mu ne maa ma ne ko lan la diine wax ci kuy tas sëy ci coobareem nga ne ma loo ma wax nga ne ma baaxul bàkkaar bu rëy la uh-huh. te ay yaay ñi ngi fi di tas seen sëyu doomi góor ay papa mm-hmm. ay papa ñi ngi fi waaw maa ngi ñëw yaay booy tollaguma ci li mu def maa ngi ci jëf ji jëf ji ni mu toll. waaw doo ko yegg si kay wane dangaara waaw non dama ni dama ni. jëf ji jëf ji waaw mais Soros may ma jëf ji non reetaanu ma xam nga c'est facile c'est facile xam nga c'est facile man damay wax toujours société sénégalaise bu dañu dañu aay ci wax ci keneen gis nga bu bu ni ñuy waxee ci keneen bu ko nit ci doon taxaw di ko def taxaw seetlu ci boppam ku ne taxaw def taxaw seetlu ci sa bopp kon yaakaar naa société bi defaru mais lu mu def xolal ma ni la bakkaar bi nekk ci tas sëy yow nga naan ma lan la def c'est-à-dire ak ak liggéey ba tàqale ñaari doomu aadama sofi on est may ma may ma man qui a qui a fait quoi ne m'intéresse pas je situe les responsabilités dama ne qui a fait quoi ne m'intéresse pas je situe les les responsabilités sëy bu xale bu jigéen bi ñëwee sëy si nga tas sëyam si coobareem am nga bàkkaar boo xamante ni boo leen demee doo xam looy wax la société culturellement dinañ ne la yaayu xale bu góor bi nga sëru xale bu góor bi nga may la force ak pouvoir nga def lu la neex mais boo demee wuy ji di nga xam ne li nga def bokk na ci bàkkaar yi gën a mag ci société donc bu nit ñi di sëy di ànd di jaamu yàlla jàmm moo fa xaj leneen xaju fa du moment où les gens di abuser pouvoir genre père yi nga dem sey ci biir këram mu ah. bëgg la gëmloo culturellement ah. que da nga war a yanu goro yi ah. boo xefee sax mu ne la sama doomu góor bi day jàngi bootal ma ko ma ne la maa bañ maa bañ ba tëdd ci suuf balaa maa boot sa doom bu góor dem boot sama frère ndax ni sama jëkkër di wutee aljannatu taxta asxaabu lan la ah taxta aqdaami ummahat ah, ah, ah? ma bañ a damm kii ni sama jëkkër di utee ngërëmu yaayam pour dem aljanna noonu laay utee sama ngërëmu yaay pour dem aljanna jël nag tout le respect du monde jox yaayam déggoo ma de ustaas jël tout le respect du monde bëgg yaayam mais dama ne ni muy ma xolal après ma tas bi société bu ku nekk xamee place borom Tuuba ma tas sëy bi ma tas bi li nga wax soo ko defee sama kër di nga génn sama kilifa borom kër nga mais yàllaay sa kilifa. ci kaw suuf rien n'est éternel. li nga wax laa wax de rien éternel. soo ko defee dinga nga génn. waaw ci kaw suuf. mais ci kaw suuf éternelul. dama ne boo demee wuy ji fekk ci l'éternel. li nga wax laa wax. éternel selon li nga wax. benn kat doo fa am selon da ngeen. mais soo a a dund da ngeen a lu leen sa ndogal ma génne la sama kër am na sa doom nap ci man waaw dee ci man. waaw su may dem daf may topp. gis naa ci ba mu bëri doole ba mu bëri doole d'accord naa yow de yàgg yàgg d'accord naa yow de ma ñëw ngay déglu lu mu yàgg yàgg yaa Seyda mhm. yow laa wax. Mhm. gis naa ci barke borom tubaa su yóbbaalee sama doom mhm. lu mu yàgg yàgg dina ma indilaat sama doom. mais ci yan anam la koy indee yan la koy indee. mën na koo indi nu koy lëng. xam nga xam nga non mos a indi du ko mos a indi mosu koo indi. dem leen dem leen dem leen yéene yéene ni mu toll c'est grave ba mu ne toll taxaw. père tu n'es pas xam ne kenn du def ñu sa doom sa doom moo dul ñëwaat sa doom moo dul ñëwaat même bu demee sa propre doom sa jàmmi doom sa doom la sa jàmm la imaginez sa propre doom muy dem ak bàyyi leen ko mu dem nga war ko ñaanal nga war ko ñaanal non attention yow yaa génne jabaram ci sa nafsu demal yow normalement boo doon génne jabaram parce que sëyalul sa doom Sophie déglu ma bëgg jigéen ngay génne sa jabar parce que nga génne sa jabar parce que sa jabaru doom non non mën nga génne sa jabaru doom parce que xëy na da nga ne na muy sëyeeg sa doom <laughs> baaxul wala yow da nga jugé ne ni parce que nag parce que nag yow mën nga jugé papa mën na ma génne këram nee na parce que sëyulu ma doomam d'accord mais mu génne ma këram nee na ci naf ko wax leen ñii dëgg waay ma génn sa kër ma dugg foofu topp ma au lieu nga ñaanal ko nga ne buñ koy indiwaat muy watat xoolal yéene yooyu ginnaaw génn na ne pat atana takk ngemb xoolal loolu jàkkaarloo ak baayam ma taxaw jabaram bëgg a doon reen ci biir kër gi génnal na kër génn na mu daw topp la ndax ak bëgg jigéen waaw laa ilaha illallah gin naa ci barke borom tubaab lu mu gis baax na ah, dina ñëwaat su oppee ba nu leewu ko ba lëng ko ah. ay tànkam la soo yëkkatee mu daanu làmmiñ wa dam soo solee ruy ba mu tuuruwaat. mais mais mun na bañ a demee noonu père mun na bañ a demee noonu. dama ne ah. mën nañu njëkk a seet si. may ñu waay dama la dama la père li ngay wax ni tegoo ko fenn. tegoo ko fenn li ngay wax tegoo ko fenn. c'est pas parce que nit am na droit nekk biir këram ba mu bëgg a génn dafa ànd ak jabar. waxuma ak yow de. man maa wax ak yow. waaw bu ci man. am na droit. waa yàlla bukki laa du ma njoowaanug teg du ma njoowaanug teg amul raison parce que borom suba maa la gën a déglu waa yàlla kii laa du ma njoowaanug teg lu <laughs> ay féministe ngeen. waaw dara jëy borom Tuubaa su ma la faale yàlla bu ma gisee seen Tuubaa man waa yàlla yu bukki laa du ma ñëwaat lu kenn. ma ne ñun ñëpp waaye yàlla lañ yàlla nee na lañ jox paral faal may ñu yàlla nee na. soo ko jegee laa wax ba doo faal gendarmerie foire a ngi nii. barke borom Tuubaa su fekkente ne jëli dépassé na ma ma duma ko. dara jëy faal damaa dox damaa gis. damay faal damaa dox damaa gis. soo ma dépassé dara jëy. Eh, dama ko doon loxo ma chéri ma yaa sama chéri ma yaa sama chéri loxo ma balaa ngaa ma wàccee léegi. parce que borom tubaab sama dépassé ma dugg. ma ne. Eh, waaw a ragal balaa moo yegg si ma wàccee ko. dépassé la. man du ma ragal. du ma ragal dem formé seen ak seen kii ñëw indi daal di dama la ne damaa dox. maa gis. waaw léegi léegi yaay Fall dox. dox damaa gis kii mooy Fall yàlla nee na. day lay papa léegi rek ñu may ñu wax ak oustaz voilà Sofia may ñu wax ak oustaz tuuti question moo ko laaj dafa am importance est-ce que waajur góor comme jigéen am na droit tas say doomam. non non non non waxuma yow waxuma yow waxuma yow papa. dëgg la Fall damaa gis xaaral papa recul waaye nag yow tamit oustaz yow ñëwal nga ne yàlla lu mu wax ci loolu. Sofia. Hmm? dafa am ku ñu doon wax Musaylamatul Kazzab hmm. Hmm. ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam. xam daf daan gis ñuy bind yonent bi lettre di wax ni muhammadu rasulullah muy wax ni moom tam am na garaatu boole ci turam rasulullah daf daan bind yonent bi lettre naan ko min musaylamatu kazzab rasulullah ila muhammad rasulullah su demee ni yonent bi al ardu xismaani laka lii naan yonent bi suuf si ñaari xaaj la ni nga nekkee yonent laa nekkee yonent yàlla xamal na ma ni yaa moom benn xaaj bi maa moom benn xaaj bi xam nga kooku ay waxam rek la yor mais teewul yonent bu ko daan tontu daf ko daan wax ni innal arda lillahi yurisuha man yashaau min ibadihi am na koo xam ni bu dee wax da koy déglu mu wax parce que wax duñ ko tere kenn wa shawirhum fil amri la yàlla wax da ngeen di diisoo kii day wax jëm nii mais bu ko ni fi nga jëm du foofu bàyyi ko mu wax kii wax jëm nii mais bu wax yépp dajaloowee ku ne wax sa xalaat doxal ba màkkatal mukarram ñibbisi bu benn aaya alquran waxee sa wax day tux existé tul waxal ba yor laaf nag di naaw da ngay cëppeelu parce que wala yatuunaka bi masalin illa jinaaka bil xaqi wa axsana tafsira alquran moom bu xasee wax xolal patt ngay maye Sofia way jur fi muy amee garaatu tas sëy par exemple ma am sama doom bu jigéen muy sëy ak prosper ndaw si dem ba mu yàgg sama doom mu ne ma bëggatuma prospère bëggatuma prospère ah, ñu wax jëm kaw jëm suuf mu ne bëggatuma ko mm-hmm. ñu ah, jigéen de bu xasee déclaré ni bëggatul mm-hmm. ci lislaam dañ ko ni da ngay fay mm-hmm. lañ la mayoon keroog bañ lay takk si comme keroog comme yow yaa ni bëggatoo sëy bi il faut nga yëkkatiwaat loolu nag delloo ko ku góor ki léegi nag fi problème mu Sénégal nekk mooy am na ñoo xam ni lañ la joxoon boo leen ko dee delloo duñ ko jël. Mm-hmm. ñu ne kon su boobaa nan la def ñu ne kilifa ku jigéen ki baayam am na responsabilité tas ko am na boroom xam-xam yu wax loolu. am na ñu wax ni it bu fekkee dëkk ba dañuy attewoo sharia ka nga xam ni mooy président tribunal bi ci l'islam am na droit tas sëy bi waaye tas sëy boo xam ni da ngay toog rek. xool ku góor ku jigéen ki neexu la. parce que ah. du sa mbokk. waxuma loolu mm-hmm. de. Mm-hmm. loolu lay nga yéen may déglu loolu lay nuru nag. waxuma de. néew ma damay xool ab sëy tas ko. parce que fóotalu ma kii neexu ma déglu leen loolu de. dama ne yaa ngi sama kër di lëmbe. jubawoo ak sama njaboot. doo fasta xànc ak moroomam ku wax nga duma ci biir kër gi. bëgg maa dégg ci sama ànd. Eh, loolu waxuñu dinaa la wàcc dinaa la may baat di nga génn sama kër. waaw waaw ginaar ak nenam yëpp borom ginaara moom waaw maa moom sama kër ginaar ak nenam borom ginaara ginaar a moom du sa jabar du sa jabar dama ginaar ak moom maa sama kër waaw dama koy génne dama koy wacc waaw loolu laa wax mm-hmm. mu ànd ak jëkkëram dem ci appartement yi dund fa loolu ak loolu. waaye su oppee nga delloo si ma ko. du ah, opp nag du mos a ñëw ah, ah du opp. yàlla mën na koo suturaal ba mu bañ a wopp <laughs> na koo suturaal ba mu bañ a wopp. xam nga wax dafa am benn affaire. su oppee dinañ mu daaneel ma ñëw ci yow. ma daaneel lu saas daaneel. dafa bari jigéen diir ci kër yi xam nga lu ko waral. jigéen rek seen mbokk. jigéen rek dëgg la. Mhm. dëgg la. danga nga waroon njëkk ci famille bi doo ko takk feneen. bu du xataal na jigéen ci këram awaloowul sa mbokk. dëgg la waaw ba ilal abat. doo am jàmm pourquoi. am na koo xam ni teraanga boo ko mën a ji. du ko gis parce que bëggu la maa la ko wax. dëgg goro buy xëy ànd ak doomam bu jigéen caatam mbaa mhm. daw ay kilomètre dugg àll bi lu leen fa yóbbu ki sunu doom takk lanu bëggul tasal sëy bi. foo koy teg ban raison. fii ak muy tas moom du am jàmm ci kër gi. Sofia am na jigéen ñoo xam ne xoolal Sofia am na jigéen ñoo xam ni wallahi la azim li ñu lay woo di la ko expliquer ci ay problème boo continuer di leen déglu tam sa rangoñ tuuru. dëgg la parce que sëy boo xam ni Sofia nekk nga ci kër gi bëgg nga njëkkee kontaan. Mhm. ñu ne ci kër gi ñëpp il faut nga jaamu leen comme ñi ngay jaamoo yàlla pour am bëneeru àdduna. Mhm. waxuma loolu de. loolu la loolu la laajte nag. waaye nag di nga la ta a kaa neexal. dëgg la neexal kay moo gën tàngal. Safia ma ñëw ma ñëw. nga màndu. ah ñu màndu ci yow. ñu màndu ci te soo màndoo ci moom ñu ne ñu koy géej. Safia. ah yaa Seyda yaa Seyda yàkkamti naa la lool. Mm-hmm. jigéen ñu bari ñu ngi ci néegu sëy yi di sëy. Mm-hmm. surtout nag ñi seen jëkkër tukki. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo dem ba xam ne amuñu pexe parce que am na ñoo xam ne jéemal nañ leen lu ne mais yàllaa leen téyel boppam ñi seen jëkkër tukki képp ku ci yem ci goyet wala nga yem fa nga war yem nu jàppee la nan la war a jàppee waaye ndeyu gune yi ndeyu tukkikat yi duñu ay ngaaka de rakki tukkikat yi duñu ay ngaaka de jigéeni tukkikat yi duñu ay ngaaka de ñu laa ñu laal foofu tey mën nañoo laal fu mu ah, ne. ay ngaaka de. Hmm. ba nu tukki wàcc la ginnaaw. ubbi bi teelul laaj ko leen xeeñu ta ba keneen ñëw di ca xeeñu. du yoon dunu ngaaka de dunu ngaaka. du yoon de kër yu bari ngi yëngu. c'est parce que dëkk yi dafa am lu ñuy gis. di ko xool di ko xam. lan la ñuy xool ah? lu ñuy xool lu ñuy gis ngay jàdd da ngay jàdd ah lu seen yoon lu ñuy xool ah li ñuy da ngay jàdd da ngay jàdd dama ne da ngay jàdd da ngaa am jëkkër mu nekk ca kaw nga ëlbati ko amu far. ban mooy jëkkër ci kaw lan mooy ndeyu bàyyi nga takk sa jabar. waaw déglu kër gi eh, luy ndeyu bàyyam eh, nga takk sa jabar soo bàyyil papa. Ah? takk sa jabar bàyyi ko ci kër ay ati ati ati ati at. waaw te ñëwoo. léegi war naa tax nga teg waxuma waxuma war. Eh, war na demal dama na leer dama ne man man gisuma lu ma ragal. déedéet dañuy évoluer rek yaay tey lépp ci lépp la ñuy laal. yow suuf rek waay di déglu ko nga ne takk na la ngayu waaw dama waaw li njëkk a nekk violence. waaw ci jigéen. mooy góor bi nga xam ne takk na jabaram. bàyyi ko ci biir kër gi dem tukki. ay ati ati ati ak ñëwul. léegi yaa ngi loolu noonu moom mu toog di ko muñ waaw est-ce que comprendre waaw loolu noonu moom mën na am droit que ne wax ne man mënatumaa muñ am na ci droit man ne mënatumaa muñ jël les décisions qu'il faut waaw bañ a mooy waaw ah, ah, waaw su ko neexee na dem comme mënta muñ na dem waaw na dem waaw loolu noonu mais doo toog ci kër gi di jàdd c'est-à-dire que ay goro parce que am na benn affaire boo xam ne dafay am lu muy indi benn amalgame hmm. parce que boo nee tey goro bi ku njëkk njëkk bi war naa seet seet lan lay seet lan lay seet jigéen la ngay jigéen loo def mu xam ko ñaari cokkeer noonu kenn mënut a réer sa morom ci mboq mi ñaari cokkeer mënuloo réer seen morom ci mboq mi loo def xam na ko. da nga may déglu Sophia ba résumé. ayca ayca ustaz daaneel ak daaneel ak ma dellu ci Maya. waaw sonal keneen. Sophia dama dama. ñaar ñuy sëy laa wax dama toll woon dama lay laaj ndax gisoo ko. waaw léegi ñaar ñuy sëy ci kër. waaw duñu bàyyi oustaz mu benn nañ bàyyi oustaz mu daaneel ñu de ñu gestuwaat. Sofia dama dama toll yaa bëgg naa mu ñëw ci ak seet yëpp. dama toll woon ci moodu moodu rek automatiquement. mu dab mu këf ma. Hmm? ma àggale li ma doon wax. Hmm. dafa am moodu moodu yoo xam ne dañoo yàgg bitim réew. te seen sago bàyyiwu leen fa dañuy wut teraanga buñ ko amee rek ñibbisi. am ci ñoo xam ne dañoo takk soxna bàyyi leen fi. xam nga nekk bitim réew ci galaas gi ca coono ya ca daw ya nga bëgg koo booleeg sa sœur yi na ci biir kër gi ak sa yaay jubóowuñu ak sa sa soxna minute bu nañu woo la xam nga li gën a dangereux mooy an sama soxna nga ni xanaa yow ma nekk Europe nga xam fu mu dem mm-hmm. loolu yaa ngi yàq boppam mi ngi biir néegam tëdd oustaz waxal ci kaw am clan yoo xam ni day am ci biir kër yi ànd kompaloo sa jabar mm-hmm. laaj nga mbottu génnam parce que Sofia dafa am jigéen ñoo xam ne gis nga iPhone kese bu buñ ko bëggee te amuñu ko gis seen jabar yi càmmiñ njëkk leen koo am duñ ko si dëgg la mm-hmm. dëgg la yaay waxoo ci waaye Moodu de lu mu liggéey jabar ji la koy jox. Mhm. gis nga armoire bi bu yàgg la ko changé la sa yaay commencé yëg boppam ne la li nga may yónnee bu mu jaarati ci sa jabar nay jaar ci man directement. Mhm. yooyu yëpp da nga koy gis. fiiraange boo xam ne day am ci way jur yi jëmale ko ci seen jabari doom yi dem ba xaw a jur genre mbañeel dem ba yóbbu la ci cadre la ngay fexe mooy naa defi prêt pour mu jóge fi. yéen ñi nekk bitim réew. bu ñu leen waxatee information da ngeen koy gëstu yàlla nee na in jaakum fasiqun bi naba in fa tabayyanu sunu borom nee na bu ñu la waxee information vérifier jamono bii nu toll nag da ngay éliminer nopp fal bët. xam gën a wóor dox. ndax nag il faut nga teey Sofia bu fekkee lépp lu nu la wax nga nekk bitim réew. nga def ko nga nekk benn nopp. sa jabar ji toogul. nga tas de sa jabar ji du fi togg lu baax. te amoo ci benn renseignement bu la sa yaay woowee sol say nopp nga nekk nitu benn nopp danañ la konteel ay jabar Sofia sëy yaa ngi bëgg sëy yaa ngi yëngu kër yaa ngi tas te bari na lu ko tas bu doon cinquante pour cent ñi jëmul fenn ne ci biir kër gi bëgg a doon xalifa général ci biir kër gi te seeni at matewu ko ñoo tas kër yi. 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 nañ jël téléspectateurs yi ñoom itamit bëgg nañoo participer salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi sant. ayca ñu passe le père. waaw sëñ bi. ñu ngi lay bëggee bu baax. fooy wootee. ma ngi sant. ndeysaan Espagne. ñu ngi lay ziar lu bëri bëri. ñu ngi lay dolli ziar bu wér. ah di rafetlu waxtaan bi. ah, ah teewlu nga bu baax. Eh, waaw ñu ngi teewlu bu baax a baax di kontaan ci yéen ñëpp di wax gars yi aussi ñu bàyyi laa tooñ quoi ay ñoom Sofeeg ñoom ñëpp tey moom gars yi dañ laa xamul kii quoi. <laughs> waaw de ah, moom kay yéen a ko waxal yéen a ko waxal seen bopp waaw. <laughs> dafa réew bu gëj maa ngi ree rek. Ah, ah li may wax kenn mënu koo teggi de. li may wax kenn mënu koo teggi de. li muy wax dafa reelu. déedéet déedéet ma ne li may wax kenn mënu koo teggi de. dafa reelu barke borom Touba barke borom Touba dafa reelu ko suñ ko tegee rek man naan sàngara li li li may wax amul ustaas amul dara amul ustaas damaa dox waaw waxuma gune goo xam ne da ngaa tiim télé yi mosoo génn ah, papa nee na nga déglu ko bi Fall Fall waaw maanaam yow ak euh, a déggoo la moo tax nu topp naan waaw xam-xam xam-xam ñoom de ko wax. yéen ñaar bu ngeen waxtaanee de ko ngemb. sa kan sa xarit bi dem ah yow tamit loolu weesu nañ ko. papa jëlal kii jëlal kii jëlal xajuma seen kaw. papa jël ko nekk ubbi nañ ligne bi allo allo. allo. asalaamaaleykum. sang bi na nga def. ñu ngi sant fooy wootee. maa baax na. waaw maa ngi balu àq nag bu baax a baax baax baax nag. jël àq. ñu ngi lay baal ñu ngi lay baal bu baax a baax mën naa. mën naa lay baal waaw na moo woote woon fan yee sant Cissé. ah te dal sama kaw. waaw ah ci kii. Ah, waaw waaw baal nga ah. dal sama kaw man ak waa Amar Amar bi. waaw non non dal ma sa kaw de buñ ñu dal sa dal ma nekkoon di booy wax. booy wax toujours man dépendre naa la lu ëpp deux ans. sa fan si nga doon wax. tuuma si man da ormal mag ak respecté mag. allo allo waaw non ah. waaw sëñ Cissé waaw maa ngi lay déglu. waaw man la man la sëñ Cissé boobu noonu man lay oo. waaw foo dëkk yow. gan Cissé. man maa ngi dëkk Louga. ah Njàmbur Njàmbur. Njàmbur Njàmbur waaw. foo dëkk si Njàmbur. ayca. man Njàmbur Njàmbur laa waaw maa dëkk Louga. Louga ah Louga nga dëkk. waaw. wax nga dëkk kay Cissé xam nga xam nga yéen. ah man ngaa dégg dëkk bu ñuy wax ñeem Cissé. waaw. ah de waaw dégg naa ko waaw dégguma fa sama tànk nag. da koy dégg mais booba xamoo ko. déedéet demuma fa de. non non xam doo ko xam. ah la mooy suma xaw ma ko de. sama problème mooy man ab oustaz gis nga oustaz déglu n'importe qui. ba tey xaw ma li ba bëgg a wax. d'accord ah, nee na mu ngi koy mu lay jégalu ay bi ñu lay jégal bu baax baax kontaan nañu donc da euh, dañ am lu xew. ci Sénégal fi mu toll ñu ngi ñëwaat ñu ngi ñëwaat ci téléspectateurs yi léegi euh, Prospère papa euh, <laughs> day diingat rek ndeysaan oustaz <laughs> yaa booy Maya ci kaw Modou Fall papa te xamul ne maa ngi Modou Fall bokk ay ndab bokk ab dëkk wallaay barke faram Tuubaa Mbàkke billaahi wallaahi wa taala dëgg la su ma yuuxoo wax station May Maalim Mbuub. dëgg la léegi papa. foofu la ñoom Cheikh Ngiraan ak ñoom Khalifa Ngiraan jóge dem voyager. Oustaz papa Prospère yéen ñëpp ak ñi nekk si ginnaaw parce que ñoom war nañu retrouver euh, mais en attendant ñoom ñuy ñëw dañuy changer tuuti rek. dem laal beneen point boo xam ne actualité la biir Sénégal ñu ngi dégg tout le temps temps yi yëpp jours yi yëpp ñuy wax ci éducation sexuelle bi nga xam ne dañ ko bëgg a introduire ci ci école yi waxoon nañ ci nag autant fii ci biir émission gis-gis papa bañ ba tëdd ci suuf Maya doon expliquer lu tax ñu war ko def suñ ci mënee laal tuuti balaa euh, euh, oustaz di dem waxu balaa oustaz dem ak ak ak ñi comme ça ñu mën cee ñëw papa ñu ne éducation sexuelle dañ ko bëgg a dugal ci njàngum xale yi waaw yéen ñu nekk intérieur ñu nekk extérieur ngeen atte rek yàlla tax mm. ngeen atte rek te sunu borom tax moom laa leen dénk nangu nan koo wax ci tubaab éducation sexuelle ci tubaab waaye amu ci kenn ku am fitu taxaw wax baat bi ci olof loolu mooy la nangu naa ko wax ci tubaab waaye nanguwuma ko wax ci olof ah. dénk naa la nga wax ko ci nga jóg taxaw présenté wu nga wax ko ci <laughs> olof ci digg ba yow laa ko dégg yow yow ak oustaz mais Serge yéen laa ko dénk nga wax ko euh, ma sa micro Serge comme ça Serge tamit mu mu mu mu leeral Maya non sa yoon nekku ci non non non non sa yoon nekku ci waaw papa dama bëgg nga leeral laa wax ak kii nanu jóg taxaw wax éducation sexuelle ni ñu ci tubaab nu wax ko ci olof. yow noo koy tënkee ci olof te yoon nekk ci yow soo waxoo ko ci olof. yow soo waxoo ko ci olof yow. yéen a ngi gis ne xam nga ni kenn àndu ceeg man. yow soo waxoo ko ci olof. wax naa ko ci tubaab li ma lay ñaan damaa ne am naa fitu wax ko ci olof. ci anam yi mu amee. mais dama ne ñaar ñii laa sas. Ah, sosal sa bopp léegi Maya Maya Maya waxal ci éducation sexuelle na nga ko waa Maya ayca ñëwal. <laughs> waaw euh, Safia. <laughs> Euh, je pense que éducation sexuelle du sujet bu bees bu ñuy waxtaanee ci plateau gis-gis. ak ci beneen.